ñu bari tey ñi ngi nekk ay mag yoo xam ne li tax éducation bu baax amuñu ko ci seeni parent la kon parent bi am nga ci responsabilité bu rëy léegi nag foofu ma wax ci point ni ngay yaree ci looy war a tàmbalee mooy li ma wax sànq lu fañ war a tàmbalee duñ fa tàmbalee xam nga tànnum borom kër sàmba su xumboo taseel ca mbedd ba ànd ak moom xam nga ni loolu moom taxut ñuy wax moom mooy tànnum jiw ñu ma doon wax rek léegi bi nga tànnee boroom kër tànn ku baax tànn ku nangam dem ba am doom ba ñaan yàlla gis nga na nga commencé yar yaram lislaam gone bul ko xeeb xam nga ne xale bu toll ci ñu ko ñu koy jàngal del lekkee ndeyjoor nga wax wax wax mu tëri nga di tar loxo bi waxoon naa del lekkee ndeyjoor yow doo yarkat kii daa xam luy ndeyjoor ak càmmoñ bañ koy dóor ci ci ci del lekkee ndeyjoor del lekkee naa ko may ma mu may la nga ne ko man moom ndeyjoor laay lekkee parce que yonent bi salaa sallam nee na ndeyjoor lañ war a lekkee demal leçon bi dugg gis nga dugg na de xale bi jërul dóor jërul dara nee ko may ma rek ci li muy lekk bu la mayee nga ne ko man moom ndeyjoor laa koy lekkee ndax loolu la yonent bi digle da demal sa yoon ci saa sa da ngay gis mu teg ko ci loxoom ndeyjoor bi daal di lekk saw na tubayam nga daal di dóor dóor dóor moo mujj ci yar gis nga di may joxe misaal ni fase ni mu mujj maanaam fase solution ko amul solution la dóor solution ko amul solution la waxuma bokk ci de ci la bokk même ñiy wax ci éducation dóor bokk ahankay ci la bokk waaye nañuy dóoree ak kañ la ñuy dóor su ko defee gone gi nga di ko yar ci noonu man am na ku ma masa nettali ne na ma bis bi ma sama baay njëkkee dóor sama àdduna dafa tukki ndax sama baay mosumaa dóor xool loolu ni mu ko marqué sama baatam sama baay musumaa dóor kon dekkee lolou dafa am jeexintal ci xale bi yar gi nga koy yar té du pes fi dóor fi dóor ci bop do yoy yeb day yak dóor ci bop baxul pes baxul parce que yoy yeb ben bu ci ne bu ko yont bi téré dafa am lu muy yëngal ci cerveau bu xale bi du pes du dóor ci bop du xët du rek yoy yeb ben baxul ci xale bi yang koy def defe ne yaa ngi yar xale bi fekk yaa ngi yàq ab yaram te yang koy lor parce que yang koy wan ni ëllëg ku yar ni la wara yéré te du nonou beneen bi ci des mooy yaa ngi koy perturber beneen bi ci des mooy koy jural ak een gum lay een da ngay gis koo xam dafa bañ way juram am na koo xam ne ndeysaan dafa am problème jabaram ñëw wax ma ko problème bi lan la mooy yaay jeeg bàyyi ji ñoo jote bi muy nekk liir yaay ji mer gedd fa liir ba nàmpalu ko bàyyi ko fa ndax fayantoog papaam moom bi mu màggee ay bàjjanam nettali ko ko tu vois loolu danga mooy problème bi fi ne defuñ ko dara lu dul nee na action bu ma ko fàttalikoo dootuma bëgg a gis sax sama yaay bul ko def bàyyi ak yaay seen jote yoonu doom nekku ci wallaay buñ ko ci dugalee tooñ ko ci defe naa sooy xanaa docteur laa doon dégg muy nettali bàyyi ji ak yaay ji doon xuloo xale bi moom toog fa fële moom boolewu ci waxam ba kii naan waaye doo bokk ci li ñuy wax mu ne man maa ngi xaar rek bu ngeen dee dem bu ngeen teqali ko wiifi ko yóbbaale ma ànd ak parce que <laughs> wifi bi mooy problème moom wifi bi muy connecté mooy yittee moom waaye yéen ñaar rek leen seen problème wax na dëgg de xale boobu bi ma dégloo histoire man jàng yi bari waaye dama ne xale bi daal wax na dëgg moom gis nga ñooñu li ñu jote yoonam nekku ci moom wifi bi la am soxla na toppatoo wifi bi fan la jëm rek mu ànd ak kooku kon jàpp naa ni jote yi am ci way jur yi aleykum salaam wa rahmatullah wax dëgg yàlla yoonu gone yi nekkuñ ci